jëm bon da leen bañ a yàq Boy, boy, take out him. Candela Petit Lo Petit Lo jël na ko plaqué na ko plaqué ko nu mu koy def da koy yenu wala lan yenu na ko daan na ko Petit ko Petit Lo Petit Lo Petit ko Petit Lo daan ko